seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang tàmbali ak xiini miini bi nga xam ne moom la laa Laasana Jaabe nekkee jamono yi ba tax yéenekaay yépp waaru lool yéenekaay bi di enquête na waaw procureur général bii Laasana Jaabe ah doy na waar lool lool lool ay kàddoom kenn mënul xam yàpp la wala jën la moom day dugg ci paanu diwtiir génn weex fur vox populi ne mi ngi xii ni mii nii de kenn xamul lu muy wax kenn xamul ban nga ciy jàpp est-ce que ñu arrêté procès bi wala duñ ko arrêté kenn xamul lan lay wax moom mii di laa Lassana Dia bi laas na dëgg la mën a dama waaru lii de fulo artistique la fulo artistique la ñu nekkee jamono yii ak ay kàdduk Lassana Dia bi démb jël na kàddu vox populi duñu xamal lu mu wax nee na procès verbal bi mën nañ ko écarter ndaxte dañoo violer li di article cinq bu règlement bu UEMOA ndax bu ñuy déglu xalifa sàll ak ñamu ànd ak seen avocat teewul l'observateur ne procureur général ci boppam mu ngi sàkku ñu annuler PV d'enquête bi waaye nee na fi mu nekk nii nañ en annuler lépp ba des bu Khalifa Ababacar Sall yéene kaay bi Les Échos ne moo tax démb xaw tuuti palais de justice màbb ndax fecc gu métti goo xam ne kenn xamul la lañ koy tëggal jamono yii moom laa Sénégal bi démb yëngal na lool palais de justice dafa yëkkati kàddu ne PV d'audition yi violé loi bi nañ ko dindi ci li nga xam ne moo di procès bi waaye réquisitoire procureur nañ ko ci bàyyi te réquisitoire boobu mu ngi soqe ko ci PV bi mu bëgguñu ñu ko moo tax gars yi ne waaw lii nañ la ko xel mën a jàppee lool doy na waar de bis soo déggee des fois mu seppi Khalifa Sall ci mbir mi des fois mu ne d'accord na sax ci caution partie civile moom daal maa ngay lay rek yéen kay bi les échos ne looloo tax nag ay avocat Khalifa Sall na ko laasana laasana mbir mi da koy ñeme. wax dëgg rek te yàlla tax ñeme ko waaye wax dëgg te yàlla sax met Issa Diop ne yéen xamuleen xamu li mu bëgg li mu wax lépp porox ndolu lay ubbi ngir ñu bàyyi Mbaye Touré ak Yaya Bodian waaye bàyyi xalifa Ababacar Sall ci biir kaso bi te xam nga loolu nag manta nekk ñoo bokkandoo même dossier waaye daal ma nga bëgg fàq yoon woo xam ne mën nañ fa jaar ngir bàyyi Mbaye Touré ak Yaya Bodian lu mën a amit ba des yéen kaay bi la quotidien nag Khalifa Sall tey la ay mbiram di leer waaye li leer ba leer moo di Lassana bi du bokk ci liste bi nga xam ne journal enquête tey wane na ko mm, journal enquête lu mu wax procureur yam fulla rebelle dëgg ñoo xam ne kenn mun leen sikk ci lenn ci dossier yi nu yor te mën na leen lim de Ibrahima Ndoye xoolal na mu yoree mbiru Cheikh Béthio Thioune ba mu jeex ak chantier wu Thiès Cheikh Diakhoumpa ci mbiru Farba Ngom ak Ousmane Diagne ci mbiru Y'en a ak Aïda Dione gàcce ngalaama procureur yooyu lee ñu dem ci Karim Wade ndax nag yéenekaay bi Le Quotidien mi ñu yëgal benn docteur en bëgg na ko sauver dugal na recours ca ambassade Kuwait City bi nga xam ne fa la bindu woon El Hadj Kassé jii ci Vox Populi di rajaxe rek di dem rajaxe rek di dem nee ñoom bëgguñu benn yoon écarté kenn ci li nga xam ne moo di élection yi te nag ay messi ay prophète amatu fi nee na yàlla mooy sàkk ñu mel noonu te nag du bés bu nekk lay am lu ma amit ba des patron di Macky Sall mer na lool ngir lajj mobilisation bi nga xam ne am na ba ñu inauguré arène nationale yéen bi di laas ne lu mu yàkkul APR bu Pikine daf ko fàtte Robert Bouchi dikkati na di waxati ci biir yéen kaay bii di l'observateur nee na defe naa ne njort na Wade ak Macky Sall ñi ngi wax. wala gisee nañ fan yi ci ginnaaw te sa Seck day laju ci élection présidentielle yi nee na Khalifa Sall mën na doon candidat bu jano kii di Macky Sall moo gën a wér sax Karim wàdd ak Idrissa Seck te nag nee na Macky Sall ñàkk élection présidentielle 2019 yi dina ko jaaxal lool waaye nag nome gi mu nome frère di Aliou Sall du lu baax ci moom Boun Abdallah Dionne est-ce que ay dossier am xam na ko yéen kaay bi Le Quotidien ne démb da doon tontu di wax ne milliards yi génne nañ ko bu yàgg ci insécurité alimentaire ndekete dara du ci dëgg yéen kaay bi Le Quotidien ne PV réunion vendredi 20 juillet weer na ko ginnaaw Mauritanie bi nga xam ne daf ñuy mokke faalewuñ ne dañuy séddoo lépp lu ñu am ci ressource pétrolière yéen kaay bi Les Échos ne fi mu nekk nag Guinée Bissau moo nar a jël wàllam ci mbir mi am benn sénégalais bu ñu fàtt ci Pointe-Noire Vox Populi ñu ko wax yéen bi nga xam ne mode Le Quotidien nee na dakaar nee na par la force faaw Brazzaville enquête ci mbir moomu jërë ngeen jëf tey jii di sojaan seen si dakar matin point com